Benyamin ma nga ne màgg na léegi waaye moo taxaw taxawaayu Yuusuf ci baayam am cofee lool it ci baay ji ndeysaan sa jooy yi ngay jooy ji tàqaligoo gi nga tàqal koog sama mag ji du deeñ mukk lu dul ma dee أرى أن أيام حياتي ستنقضي nee gis naa sama dund gi dem dem ba jeex tàkk ba ñu dem ba dee ca say ca sa rango ñu du fer ci suuf nee ko li ci gën a métti mooy dénk de jooy loo xam yàlla dafa kaa dénk sama doom jooju muy Yusuf jooyu ma doom waaye maa ngi jaay yonente ba nga xam ni lépp loo xam ni mooy baaxal adduna bi ci la ko yàlla ndefeñ ca man ta jeex lu dul cib dig boo xam ni mënee su koo xam sax kon mbir la moo xam ni du doom laay jooy waaye yonent bu yàlla dénk risaala gi waaw moo tax nga tànn Yuzarsif pour mu yor mbirum pale bi yëpp ca loolu dafa laaj góor goo xam ni gu am xel la gu am xalaat la gu am expérience la Yuzarsif moo yoroon mbirum pal pale bi ba nga xamee ni Hunayfar daa feebar moom moo yoroon lépp ki man nag moom laa yor nekk moom laa dénk loolu moom laay diisool ndax ku yeewu la gisuma keneen ku gën a xam ci moom ci wàllu diisoo moom rek laa ci mën a nekkal ah diisoo ah kon kon kay man dinaa man a commencé nag wax ak Youssouf man tamit ah loolu kay lu ci lu ci mën di nekk rek dinaa fexe man may jokkoo ak Youssouf ndeysaan comme que léegi def nga ko ci sawet mu nekk direct sawet di ngay diisoo moom man tamit dinaa fexe nu ma diisoo moom man tamit man Zuleyxa waaye mbokk yi gis ngeen Youssouf ah, anamu mi ngi noonu ci néeg bi fi nga xam ni fa la unifor tëddoon ba gaañoo fa muy xalaat nag di ko doon liy ñaan. yàlla maa ngi lay ñaan nga may unifor noflaay. ban yàlla ngay wax yow yow Yuzaar si ban yàlla ngay wax. da nga am loo soxla ci man xanaa. Zulayxa mooy soxla moo bëgg nga ñëw da laa soxla. waa demal. demal danaa ñëw danaa fa dem léegi. kon fii la nekkoon di ñaanal Hunifar yàlla jégal ko yàlla jéggal ko ndax fii mooy néegu ki nga xam ne moo nekkoon Mubasirul Qasr gis nga document yi yëpp moom la Hunifar yoroon mooy document yi palais bi léegi Yusuf lañ koy waaj a dénk moo tax il faut mu saytu ko xool ko waaye tamit bàyyi xel paa góoram googu ci fàttaliku ko ci ay ñaan moo tax bépp liggéey bu la dénk ca am beneen poste de responsabilité boo xam ne am na ñeneen ñu ko yoroon yow dan nga ko war a saytu bala nga ciy dugg waaye mbokk yi am na lu xew dañu xool foofu Yusuf romb na xale bi di jooy xale bu weex la nag xale bu weex la daanaka du noppi day jooy rek sitini lu la dal kisiir lan lay jooy man kay xaw ma ko moom du bàyyi jooy day jooy rek moom daa weex lool day jooy rek guddeeg bëccëg day jooy waaye Yusuf raay na booba de allahu akbar lu mu fa wax lu mu fa wax ah, ñu xool lan la wax ca bopp ba allahu akbar bàyyi na jooyi lu xew lu xew ba mu noppi man lan laa wax kisiir xam na li ma ma wax moom moo bàyyi jooyi man jooyi moon laaj ko moom ci boppam dana tontu ah xale buy nàmp nan lay waxee ah aywa Youssouf jërëjëf waay yal na la yàlla ji aar moom gëmul suñu yàlla yi de gëmul suñu pas-pas usership day wax ni yàlla yi nga xam ne dañuy soxla keneen pour mu pour mu wattu leen kon mënta aar aar usership mënu ko wat ndax loolu wér na da ngaa wér suñu yàlla yi léegi déedéet li nga wax ji nga wax lan la lan laa wax lu waxuma dara du samay wax de usership moo ko wax ah mbokk yi Youssouf lan la wax ca bopp xale bi kooku secret la. nee na wér na de waaye yàlla yàlla it mën nañoo aar kenn sax. gis nga am na lu ñu dugal ci pas-pas bi mbokk yi ñu bàyyi xel nag Zuleyxa mi ngi préparé waaye ñu bàyyi xel lan la user si wax ci bopp xale bi ba xale bi doon jooy xale buy jooy wex xatt di jooy lan la ñuy tari ci boppam ba mu noppi kooku secret la waaye gis ngeen Zuleyxa mi ngi préparé pour pour teeru user siif nee na ko na dugg si waaye yow nag mën ngaa des ci biti moom na dugg si waaye yow dajal dajal bunt bi ca nga taxaw ci biti xaariñ ma foofu mbokk yi ñu xool yu zarsif Suleyxa yàlla na dund ak jàmm. man man de kontaan naa sama jëkkër Côte d'Ivoire ndaxte am na ko mu mën a diisoo léegi ku yow ku mel ni yow. waaye man aw ma dara aw ma ko may diisool nee ko bu dee kilifa gi moom daf maa woo ma fo mënumaa bañ a topp ndigalam. da nga daan seetlu suñ mbir di ko xool waaye léegi mbir mi gën a yomban. gën nga noo jege man maa ngi ci seen suuf maa ngi ci say loxo ba léegi lépp loo bëgg dinaa ko def ah garaawul du ma jël sa temps ndaxte da ngaa bëri liggéey toogal ma leeral la dara dafa am lu ma lay bëgg a leeral ah waaye xool. user chief ndax dina xool soxna si ndax dina ko fixé mu ne ko dama lay laaj dafa am benn jigéen boo xam ni dafa mosoon a war jëkkëram benn jigéen bu baax dafa waroon jëkkër waaye mbir mi daal jaaxaloon na ma trop waaye man nag affaire bi métti woon na ma trop léegi soxna soosu lan mooy atteem soxna soo am daa war jëkkëram bëgg naa daal mu gën a leer lan moo tax user chief attewul loolu bëgg bala ma ko àtte nag dinaa xam lan mooy mbir yi lu ci nekk ndax da doon war jëkkëram ci mba ci kanam mbooloo la ko war ndax da ko feeñal la mu ko def ndax gor la wala jaam la ju jëndoon ndax da jigéen jooj daa am ay doom wala amul ay doom. هل كان زوج هذه المرأة يحبها ويتقرب إليها أم كان ينبذها ولا داف ko doon doyadal wala daf ko doon sànni jëkkër ji ndax jëkkër ji doon na ko dundal ndax doon na ko sàng ndax da doon nay bañ koo jox loolu mooy laaj il faut ma xam ndax ban diina la nekkoon pour ma mën ko at laaj yooyu daal ak yeneen laaj كل هذه الأسئلة لأجل loolu lépp ci benn atte rek laaj yu bari yooyu. ليس عبثا أن بوتيفار loolu Potifar vraiment yi muy diisoo ak yow xam naa du ay jaaxaan daal. nee na mënu maa andi lu leer lu dul ma léegi tontu yooyu nga tontu ma ko ba pare. xaw ma ci benn tontu li nga ma laaj mënu ma cee tontu dara. li ma xam lépp daal xam naa ndaw si daa bëggoon jëkkëram. nee na ko bu ma dëggal waxal rek. xabaa xam nga ni mbëggeel dafa dafa sell. ca xol bu bëggee rek du mën a bàyyi ah. xol ba xol nag dana bëgg. waaye su xol bëggee rek xel mi day daal di làqu. képp ku bëgg lu bon nag war warut mën a jaxasoo xol bu baax lépp loo xam ne cofeel la mënu koo génne ci xolam bu xasee ba bëgg. Yuzarsif maa ngi lay laaj. ndax mos nga am koo koo bëgganteel yow. ngaa bëgg kenn. ndax am nga ko mos bëgg yow. ah. waaw am na koo mos bëgg de. kooku kan la. waaye daa mel ni fi ndaw si laaj ak fi Yusuf laaje nee na ki ma wommat. génne ma ci jaamu kudul moom di pour ma koy jaam moom dong kooku laa bëgg. kooku mooy sama baay moo ma xamal loolu luy wàllu ibaada ah ndaw si bëgguloon tontu boobu de waaye. kan moo may nga xanaa fii gét gét géttu ay baay ma la ba ngay duggee nu la neexe baal ma baal ma daa dañ kumba ndeysaan yal na ko yàlla yërëm mu ne ko jàmbaar la waaye daa dof amul benn xel waaw ndaw si dafa laa bëgg rek da gis ni moom boo bu de gisul moo tax muy dugg si bañ a fëgg bañ waaye nañ bàyyi loolu nañ bàyyi loolu nañ àggale suñu waxtaan. Euh, am na beneen laaj boo xam ne bëgg naa ko laaj waaye nag du force nga tontu ko nag. ndax ñi nga mos a bëgg am naa ci koo xam ne mos na laa bañ wala mbëggeel gi demeewul noonu wala mbëggeel gi xóot. nee na ko man nag daaw ma xuur ci bëgg ñi ma wër lu dul sama cofeel goo xam daan na ma puus. sama ma bàjjana ah Fayiqa dafa jokk woon ci man lool bëgg ma lool sama sët yeeg mbokk sëtam yeeg yëpp mu bëgg leen gënale leen ci man waaye sama bëgg gi ma bëgg sama bàyyi nag moo ma yóbbu bañ dugal ma ca teen ba. waaye moo ma taxaleeg sama baay tamit man ma man waxuma la ay mbëggeelu mbokk de ak ay jegeñaale ndax nobante kay laa man mbirum nobante laa ndax yow mos nga cee dugg ay nobante laay wax waaye waxuma ay bëggi mbokk ak yooyu nee na ko déedéet. déedéet. daan na ma jigéen ñi daan nañ ma xool a bëgg sax waaye da daaw ma leen daaw ma leen fullaal daan nañ ma xool pour bëgg ma waaye daaw ma leen fullaal am na lu ko metti de loolu doy na waa doy na léegi mën ngaa dem sooy demal. léegi soxna soo si bëgg dinaa ko laaj dinaa ko leerluwaat su ma amaatee beneen xalaat tamit ci mbir moom dinaa la woo ñu gën cee diis ko ndax fa ko ndaw si woo du foofu la Youssouf tonte. moom da ko doon wax ci mbëggeelu Nobel moom mu koy wax ci mbëgg ay mbokk ak yooyu. nee na ko ah may wax mu naan maan mos na jigéen ñi bëgg nañ waaye dama leen faaliwul. ish li mooy lan. ah daa ba dafa am lu xew. xanaa Yusuf daa fàttali ne sama jaam la. muy waxal muy wax ak mel mel ni koy wax ak moroomam. wax na dëgg nag. lim la tontu kay tontu kilifa kay noonu lañ koy tonte wax dëgg. danañ ci xam dara. bis bis ni tey dootu ko may dootu ma ko may lu toll ni pepp suuf. nee li ngay def mooy nga génne ko fii rek. génne ko rek mu ne ah Poutivar ah Poutivar mu du nangu loolu ndax xam ne ni ma jokkoo ci moom. léegi nag sa tànn daal mooy bi jub. léegi tànnal li nga bëgg rek moom mu def loolu léegi dama bëgg nga invité nga defal benn invitation invité ma nit ñi bu ko defee ma dugg ci ay foo kafre ndax ma fàttali vraiment daal maa ngi commencé sonn xam naa ne Youssouf du ma mos a bëgg du ma mos a faale sama xel ak sama xalaat dina dinaa ci dugal yeneen yu dul Youssouf ndax bëgg gi ma ko bëgg ak jokk gi ma jokk moom denc ndax xam naa ne ma ko gisee nii kii du ma mos a faale <laughs> waaye mbokk yi première fête baa ngoog nee na dama bëgg daal <laughs> invité benn fête ñu kaf ree naan noos ndax sama xel daal Youssouf génne damaa taxawal fête gi nag ngir seen teraange ngeen paas seen temps ngeen kaf reetaan jël seen temps waaw ñu daal di noos ñun ñëpp looloo tax ma invité leen ñu ngi nag ñu ngi wax. nee nañ famille bi daal ñu ngi commencé weddi suñu yàlla yi ñu ngi saboté yi amu même jëkkër ji tamit jëkkëram daloon na ci kaw ki nga xam ne mooy jiite armée église bi waaye yéen yaakaar ngeen ne suñu invité bi ñuy Zuleyfa invité est-ce que amu relation sax ak xalem bi est-ce que du affaire xale bi boo tax mu invité ñu dañuy wax ni daal benn xale bu rafet bu naayis daal moom la taxaloon nee na yéen da ngeen a soxor ndaxte mu Kotivaar ba mu dóoree sa jëkkër ji ba léegi yow ci nga ko ci nga ko jàppal xeen ci nga ko mere ba léegi. <laughs> <laughs> yéen seen reetaan yi da ngeen daa mel ni seen reetaan yi daal gëmu leen li ma wax ne ko am na yeneen yu dëgg mais di gëm yooyu moom moom vraiment garaawul dinaa leen leeral ñëw leen. topp leen ma rek dinaa leen wan ni ndaw si am na lu mu fekk xale bu góoram ba. ndax mën naa laa laaj yow Zuleyxa laajal waaye nag bu laajaat lu jëm ci mbirum xeex ba nga xamee ni moom la armée bi doon xeex ak ñi ci église bi kon jëkkër jeeg du loolu sa xale boobu kay laa laaj kanaani bi. وما الذي تريدين معرفته؟ loo bëgg ci loolu loo bëgg a xam ci loolu. لا شيء. dara. أردت أن أعرف أين هو فقط. damaa bëgg a xam fan la xale bi nekk rek sa xale bu góor bi. lan lay def léegi. فكرت في أرجاء المكان. ndax damaa gis fii yëpp gisuma ko fi benn yoon. te foo nekk dafa daan nekk. ndax da ngaa bëgg ngir da nga ñëw ngir feet wala da nga ñëw ngir yëttu seet loo xam. wala alex maaw ak balex maaw ñoo lay ak ak bon yamin ñoo la yabal ngir nga indil ay information loolu moo la fi indi yow ñëw leen lekk gaa ngi nii yéen moom lekk gi de jël leen ndeysaan ndeysaan gis ngeen day lu des rek Youssouf andi waaye tamit ba léegi sax yóbbu na ba def leen def leen dañoo am spécial seen fur wi bu ñu lekkee ba pare ñu andi leen seen fur wi ñu macha allah dootuñu yëg lenn lu ñu wane ak njaam la gu nekk ci ñoom noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maxwa woon loolu ñu tuddee al ubudiya ñun am na yeneen yu mbir yuñ dégg sax. yoo xam ne sax daanaka ñun la jógee ma ne bu ma nekkoon place Zuleyxa danaa tëj xale boobu dama koy tëj ci buntu yoo xam ne dama koy nëbb kenn du ko sàcc surtout ñi jigéen dëkk bi du ñu mën a sàcc xool waaw anamu léegi waaw wool ñu ko ñu xool ko kay wool ñu ko ñun dañoo bëgg a xale bi. lay xaar mer na de ñu ngi dugg ci ay 18 am nag waxoon naa leen ko. mais su ma leen waxal woon dëgg kon kon kon kon ah dafa loof xale bi rek. yéen bu leen dugg ci yéen bu leen dal seen kaw kilifa yi. yéen ay sàmm sax ngeen yeeyoo leen sax som sax nekk ay sàmm. Ah, yéen ay gétt ngeen war a ci gétt yi ngeen war a dem yéen ay ko ngeen rek. ah jigéen ji bon na de moom. ah Zuleyxa nag daa mel ni la mu bëggoon de amu ko ndaxte xam nañu soxna yi dugg nañ ci ay ay mbiram nag commencé nañ koo junj ni ko xale ba nga xale bu góor ba nga doon tax ci wetam di nekk ci wetam anamu ñenn ñi tamit ni ko buñ sañoon daal nga nëbb ko ndaxte xale boobu rafet na rafetaay boo xam ni bés bu génnee ci ah, ci penc mi rek jigéen ñi danañ ko danañ ko jël بحثت عنك كثيرا seet naa la fi yëpp gisuma la la ma tax toogoo foofu fi nga invité woon nit ñi damaa bëgg a toog fii man dong waaw sa gan yi nga bàyyi fee nag ñoom yàlla yàlla sotti safara ci seen kaw ñoom nañ dem ca biti nañ dem ca sow ba da ngaa war a dellu ci biir nag dellul nag yow tamit baa xam nga wax ju bon ñuy wax sa ginnaaw ñi ngi ñi ngi ñi ngi wax ay wax yu ñaaw di ko teg sa der bi rek كل ما ينزل بي سببه يزرسف li wàcc sama kaw yëpp Youssouf moom ma ko teg. يتوجب علي man nag li ma war mooy sama xalaat ak sama xel dama koy war a génne ci Youssouf. أو أن أمحو شخصه هو wala jëmmam ma génne ko ci kaw suuf ma jëlee ko fi kon da ngaa bëgg a wax ni yow da ngaa bëgg a nga génne ko nga éliminer ko ray ko mu mu juge fi benn yoon nga féex. هذا معناه أن أقتله. loolu moo da ngaa bëgg wax ma ray ko ma dee man du ma ko ray nag. أنا لا أستطيع ذلك. mënuma loolu. mun ma kaa rey. idan alayki an tanfihi baidan. kon kon dàq ko mu génn fii na génn fii. Potifar mi fi nekk tamit tax na ma loolu mënta nekk. bu Hunifar demee ba pare bëggul kenn yor mbirum pale bi lu dul Yuzarsif kon mënu ma koo dàq man tamit mënu ma ko rey mënu ma ko dàq. hal taxrujiina fi rihla. est-ce que doo génn tukki voyage yi. أن البعد عنه فترة من الزمن boo ko soo boo sore Yuusuf ci ab diir rek sa xel yëpp dana génn ci moom bu defee nga am jàmm. préparé leen pour ñu génn dem voyage tukki. ñu dem ci côté Niil bi ndaxte comme que man mënuma sori Yuusuf léegi damay génn pale bi rek ci ab diggante ndax ma mën koo fàtte tuuti. imsaabu demal préparé leen ay yére léegi li ñu war a lekk ci ay dugub ak pepp yëpp nga préparé leen defal leen lekk bu baax ñun ñu dañuy des di la sant rek bu du woon ñun dimbali gi nga ñu dimbali kon dañuy des ba tey ci gétt ba mel ni ay bàyyi ma rek yal na la yàlla aar waay yal na la yàlla yi aar. yàlla yi bu ñu mënoon dara moom kon yéen duñ duñ leen bàyyi ci li ngeen nekk mu ne changement bi ngeen gis ni yàlla moo ko def yàlla ji ci kaw waaye du seen yàlla yooyu gis nga mi ngi dugal nag ay baat waaw ban yàlla la bëgg a wax ban yàlla la bëgg a wax sax <laughs> danaa la ko leeral après mbokk yi Yuusuf ma ngi wet ak yàlla yow yàlla yow sama borom. Youssouf la xawla lahu illa amul pexe budul ci yow. la xawla li axadin min aw ma benn pexe ci mbindeef yi. ilaahi wa rabbi. yow sama borom di sama yàlla. laa takil abdaka Youssouf. sa ko bàyyeeg boppam lu toll ak tarfatal ayni. kullama abtaa alayya malakul lépp loo xam ne yeexe naa ko rek. war ci war ko def rek. damaa cee wéet man dong maa ngi yëg ni man ku wéet ku dong la kon yàlla bu ma bàyyeeg sama bopp yàlla téel ma sa bopp. ca musal ma ci pexe yi nga xam ni mooy pexey jaam yi ndaxte daje boobu Zuleyxa daje woon ak moom Yuusuf yéege na ci nii kon fitna mi nga nar a judd moo tax mu wéet ak yàlla ni ko yàlla maa ngi lay ñaan nga dimbale ma ba ba ñu ma bàyyi ak bopp mbokk yi Zuleyxa ngi noonu nag jël na décision ni day génn pale bi dem ci côté niil bi ca côté dex ba féexali xelam génn xelam ci Yuusuf ndaxte fekk mi ngi ci pale bi rek xelam di nekk ci Yuusuf ca loolu mën naa andi yeneen mbir moo tax kalima ma proposé ko loolu kii mooy Zuleyxa ah, soxna boroom dëkk bi mu ne ah moom daa rafet sax. comme ko proposé na Yuusuf ci di diisoog moom waaye gis na ni Yuusuf ëbbi la ko kanamam laaj na ko ci wàllu mbëggeel ak yooyu Yuusuf wax ko ci mbëggeelu mbokk ak deret mu ne ko laajuma loolu ndax nobel ci lay wax. mun ko man nag mosuma nopp kenn mbirum nobel moom jigéen ñi danañ gis naa ni sax danañ jéem a jëm ci man waaye duma leen may kanam gu leer ndaw si teg loolu nag daal di koy déranger ndax loolu la bëggoon léegi nag xel mi commencé jaxasoo woote na ab ab noos nit ñaa ngi fay commencé wax diggante ma ngi usar siif mu ne kon faaw mu génn nag pale bi dem feexlu ji ndax génn xelam ci usar siif gis ñu ngi noonu ci gaal gi def benn sortie pour feexlu ji waaye kan la ci àndal kalimama Imi Sapour ak seen nee na dugal leen wat yi yoor leen wat yi ci biir ndox mi ngeen joow nag ñu daal di dem sanantaliqu ala alfawr nañ départ nu mu gën a gaawee kon yoor leen wat yi ci biir gaal ci biir ndox mi ngeen joow ñu dem da aadama nag loolu baax na ci moom bu fekkee dafa am stress c'est-à-dire xel mu jaxasoo euh, am ay jafe-jafe donc mën naa génn tuur def benn sorti génn waaye lépp mu teg ko ci lu dagan rek ndax sa charia suñ lépp daf koy contrôler waxuñu sorti yi nga xam ne xale yu jigéen yi dañ ci ànd ak xale yu góor yi di sangu ji ci géej ak caaxaan yooyu lislaam daf koo tere ndaxte góor ak jigéen du ñu jaxasoo waaye bu dee ngir dalal sa xel def euh, li ñuy wax tourisme xam li xew ci àdduna bi féexali sa xel da nga xam ni jamono jooju foofu ngay defee góor ak jigéen duñu fa jaxasoo shariyan yàlla bëgg na ko te yàlla bëgg na ñuy euh, fasixu fi l ard fanduru kayfa kaana aqibatul mukadibin aw kama qaal waaw yàlla nee na mën def tourisme doxantu def découverte war adduna bi xam fu ci nekk bërëb bu ci nekk la xew lan mooy seeni i aada lan mooy seen culture lan la ñu xam lan mooy seen baax lan mooy seen ngëm-ngëm lan mooy seeni i seen i doxalin loolu doomu aadama yàlla daf ko koy permettre ndax yàlla dafa bind adduna bi lépp mu yaatu waaye mu bëgg doomu aadama xam ci lu bëree bëri moo tax yonent yu dañ doon def tourisme gis nga ñi ngi koy tëggal di ko ko musical ñu koy musical pour au moins xel mi ñëwaat tuuti waaye ndax lii dina dalal xelam kon jamono ji sori na Yuusuf pour dalal xelam waaye est-ce que dana dalal xelam dex boobu nag moo tudd Niil bokk na ci patrimoine historique e nationale yi nga xamee ni Égypte euh, la nekk Seydina Omar ibnul Xattaab ci jamonoom dex bii da daan daw di dox ni ñi di ci jariñoo ci lu bëree bari ñu jekki-jekk comme nit ñi dañ doon jaamu demoon mujj di gëm ko di ko jaamu ndax njariñ li am ñu koy defal sacrifice ci tuur deret di ci sànni ay jigéen pour muy gën a bari bañ dekkee ba benn jamono dex ba dawatul ci jamono Omar ñu wax ko ni ko ah mu ni waa lu tax dex bi dawul ñu ni ko daa laaj nga jox ko deret sacrifier ko mu daal di bind benn lettre ni sànni leen ko ci dex bi lan la ca bind ni ko yow niil bu dee jaamu yàlla nga da ngay daw ngir yàlla san ndox di di bëpp ngir yàlla continuer ci dox sa ndigal yàlla bu dee nag da koy def ngir wàllu shaytaan arrêté ndox ma commencé dawaat bañ sànnee lettre ba a ndox ma rek ci niil bi ca la commencé doxaat moo tax loolu ci wàllu historique lu am solo la. yéen day guddi jot na leen waaye ñu ngi ay méchoui ak seen musique yëpp مكان رائع place bu baax la bu feex la ànd naa fekk yow ay yooni yoon waaye man du ma ci doyal place bi du ma ci doyal man xaw ma sax lu place bi xam du feeñ sama njàqare ba tey mi ngi ak man li mbokk yi li ko dugg nee na fu gën a rafet a ngi bu njëkkoon daal fii rafetoon na loo ci man waaye fi mu nekk nii am na leneen lu gën a rafet ci man mbokk yi soxna si am na lu ko dugg lu am doole loo xam ni moo gën a taaru gën a neex gën a féex gën dal xel ci moom ci lu lu lu lii muy fii mu nekk moom la wax léegi nii bu njëkkoon daal fi rafet na ci man loolu waaye rek nekk nii daal yépp ay xeeti euh, feexal sa xol la nit ñi di feey nga leen di seetaan nekk ci nature bi ngelaw lu neex li dila la dugg yëpp lu am solo la doomu aadama yooyu yëpp moo ko moom rawatina jullit qul man xarama zinata allah allati axraja axraja li ibadi qul hiya lilladina amanu fi lxayaat taar ak lu rafet jullit moo ko moom kan moo tere loolu yàlla nee na adduna taar beeg yëpp jullit moom ñoom ñoo ko moom ci adduna yowmal xiyam tamit ñoom lañ ko yàlla jagleel Ah. nga jox leen ko am na am na luñ am na luñ génn de. léegi nag dañuy jël yéet bi yett ko di ko defar. loolu. Ah. nee na li or la. loolu ah. atun kabira or bu mag a ngi nii. <laughs> ay soxna si daa mel ni bopp bi daa jax daa gën a jaxasoo de. xoolal or bi. innaha jamila ah lii rafet na lool de waaye soxna si day bina ayyaamun kunti tatrabina fiha liruyati lu'lu'atin yow boo mosaan a gis lii da daan kontaan ci boo mosaan a gis ormil da nga daan kontaan waaye léegi daal fi nekk nii daal lam akun ra'aytu man huwa ajmalu min al-laali waaye damaa gis ku gën a rafet or bi ma jaaxal man ah hmm. ñi mu nekkal ñëpp xam nañ li xew wax dëgg nag nee ko yow soo mosaan a gis or ni ngay kontaane mun waaye damaa gis ku gën a damaa gis ku gën a rafet or bii léegi nag lu xalaat ci or bi Zulaykha ibnati ma xatbuki la yabdu daal yow daa mel ni kontaanoo dara توهمت أن البعد عنه سيمنحني الهدوء والسكينة يا يا كورون ناني سما ñëwee fi sama xel dana dal ولكن يبدو أن waaye daal fi mu nekk nii والهجران tàqale koo gi ma tàqale koo gi su wan ko ginnaaw moo daf ma gën a jafeel jege gi ma ko woon jege yow génn ko lul ay fan rek waaw mais ndànk ndànk da nga dem ba fàtte ko nee na ko lu ma koy gën a sori sama xel muy sama muy gën a teew sama xel danaa dof de. lu ma koy gën a sori rek mooy gën a jege nañ dellu nañ ñibbi nee na ko des des fi ba ci kanam ni ñu des ay fan bu dee jeexul na nga doog a wàññeeku te da nga génnoon ngir feebar soxor mu génn ci kay xanaa boo defee ay fan dina dañ ko fàtte mu ne lu ma lu ma lu ma fiy gën a yàgg rek sama xel di gën a dem ci moom kon danañ delloo Tiiba léegi yéen ñëpp préparé leen ñu dellu jël leen seen place ku ci nekk leen ñu dellu Mimi Sabour mais ma jege ma jege ma ma laaj la. mbokk yow da nga bëgg a dellu ca pale ba da nga bëgg a delluwaat di xoolaat Yuzarsif say bët. sama xel du dal mukk loolu ma gis ko ndaxte cofeel gi ma am ci moom. عليك أن تساعديني في هذا الأمر nanga ma dimbali ci mbir mi dimbali ma rek nee na ko duma yoon njax mukk ci jooxal sa liggéey li ñu war a def kenn waru koo xam nag léegi nañ seet benn plan waaye nag su Yuzarsif dañee ci noonoo gi muy noonoog nag ca nanguwul li nga koy li nga soxla ci moom nag seetaan nañ commencé dugg mbokk yi ndaxte mi ngi commencé xalaat ay plan nag. sawfa aqtulu dama koy rey. naa def loolu rek ndax ma am jàmm. xam ngeen ba muy waaj a génn pale ba loola la programmé woon loolu lañ ko proposé woon rey ko reyal user chief wala nga génn ko pale bi mu ni mënuma kaa génn ndaxte buur bi daf koo soxla lépp pale bi daf ko koo dénk kon mën a koy génn mënuma kaa rey ndax dama kaa bëgg. léegi na comme que génn na ay far ngir féexal xolam usership génn ci xelam lu mu gën a sori usership rek xel mi da gën a nekk usership mu ni sonn naa tàyyi naa li may def kon mooy naa ko rey rek waaye ndax dina ko rey danañ jaxam dara mbokk yi. waaye jabar buur yi tamit ñu ñu ñu libre ci seen bopp la gis nga. bàyyi na fa borom këram dem ci àll bi ay fan maa ngi teeru sama soxna su rafet si ci tukkeem bi mu nekk maa ngi lay sant lu bëree bëri yow sama kilifa gi yow yaakaar naa xéwlu nga baax ah tukki bu neex la de maa ngi lay dalal ci dall gi delsi gi nga delsi yow Zuleyxa sant naa la Yuusuf ñoom dañoo am liberté parce que dañoo am place bu kawe bu leen seen borom kër yi jox waaye nag Kalimama léegi mi ngi ci ay pexe plan bi ñu jël mooy dañuy jéem a liquider Youssouf mooy dañ koy jéem a rey. waaye gis ngeen mbokk yi ci wàllu développement usatif commencé na nag euh, fi jaam yi nekkoon gis ngeen niñ ko <laughs> niñ ko aménagé. niñ ko aménagé fii jaam nekkoon léegi dañ koo décoré. def ko aménagement bu baax nee na Youssouf kii mi ngi lay xaar Zulayxa ah beneen daje ngoog mbokk yi allahu akbar. Youssouf yatlubu al-idna bid-dukhul. mi ngi laaj ndigal pour dugg si. Hmm, mbokk yi ñu xool fii nag. يحيى السيدة زليخة yàlla na tax Zuleyxa ñu ngi lay teeru di la tatagal ci ñibbi gi nga ñibbi si waat ci pale bi ak neexo yaakaar naa ne tukki bu neex la maa ngi lay sant Youssouf tukki bu neex la wax dëgg. damaa bëgg nga wax ma liggéey bi nga jot a liggéey bi ma fi génnul bi ma fi génnee lan ak lan nga fi jot a def. nee na ko daanaka yu bëri bëri sax xewul. xanaa fexe ba pare bi côté bu ci nekk ñu rafetal ko defaraat ko rek. defaraat yenn fii ba jaam yi nekkoon ak yëpp defaraat nañ ko yére tamit changé nañ ko. waa restaurant bi ak yooyu. yooyu yëpp defaraat nañ ko yëpp ay na defal naa ko benn benn benn taxriir mu ni diggante bu gàtt bi rek def nga fi loolu lépp nee na ko liggéey bi ngeen ma dénk rek laay def loolu daal vraiment yooyu nga sant ak ngërëm looloo tax nag moom ma dama la dama la bëgg a jox benn benn cadeau muy benn or boo xam ni ci naxru niil lañ ko génnee. ci suñu voyage suñu dernier ah, voyage bi gis nga lii lañ fa génn moom laalu nee na ko man jàpp naa ne mbirum pale mi yor ko sama war a war la te it bëgg naa ko ndaxte buur bi bëgg na ko waaw jëlal or bi ma may la kii maa la ko may ci liggéey bi nga def gis nga maa lay sant di la gërëm kontaanul de ndax dafa bëggoon mu jël boîte bi yëpp. ndax Youssouf xam na ndaw si. la a'lamu idha kana i'raduka 'an an-nazar fi wajhi min bab man lu tax doo ma xaw rek moo ma jaaxal lu tax doo jàkkaarloog man. xanaa da nga maa rus wala da nga maa respecté wul déedéet ah kay. dafa war a dafa war ci jaam bi mu suufeel boppam bu nekkee ci kanamu boromam. lan moo tax defoo koon bi fan yii paase. li weesu woon moom damaa nekkoon xale rek. yu ci bëri affaire jaam rek laa doon def xaw ma ko woon. lakinnani ufaddilu afawiyata ayyaami tufula wa tiibataha ala al-adab léegi man mbirum xale nag ci laa gënoon bëgg respect boobu nga ma joxoon laa bëgg nag boo nekkee ma nga joxaat ma ko. jamono ji nekk daa fa am am yar bu ñu fa war a wane user sportif dañ ko dafa jàng mbirum yar ak teggin ku ci nekk mu war laa jox sa àq ndaxte jamono yi bokkul toogal. أريد أن أنظر في وجهك قليلا dama bëgg a jàkkaarloo yow di la xool. ترمى لأيام طفولتك عندما كنت أرعاك. ndax ma fàttalikoo jamono ji nga nekkee xale. وأعتني بك. أستميحك عذرا يا سيدة. maa ngi lay jéggalu daal dafa am liggéey yu bëree bëri yu may xaar ci biti mënumaa toog nga may ma rek ma dem. soo ma joxee ndigal daal bëgg naa dem ndax ma liggéey liggéey yooyu comme ni nga ko bëggee demal sa yoon laggal. man ngaa dem sa yoon demal gis nga day boîte ba mu ko joxoon moom dafa coppati or bi rek téye noonu bàyyi ko boîte ba waaye Zulayxa xam ne ne Yuusuf mi neexut a bënn de neexut a bët allahu akbar moo koy góor faaw mu dëgër man daal xawma lu tax vraiment maman ñu déglu ko xaw ma Yuusuf ndax wax ji yàlla ji lay wax boo waxee waxu yàlla yow la ci jublu wala yàlla ji mag yàlla yi boppam ndax gis nga seetlu nga loolu gis nga pexe yi muy def ak xelam mu rafet dafa rëy ñàkk la ñàkk laa joxe respect bi muy wane rek di suufeel suufeel boppam ñàkk respecté la rek la ndaxte bu la respecté woon li nga bëgg dana ko def saa saa yu ma bëggee dem saa yu ma bëggee kii rek ah, ah mu may jéem a rëcc mi misaabu ما الأمر يا علي المقام هل تريدني في حاجة ما وراءك ndax danga maa soxla sa ginnaaw ndax demoon nga ci voyage bi loo ko gisee noo gisee tukki bu neex la waaye da doon reetaan daan na wax waaye bu commencé mer moom dañ ko doon mujj sax di ko reetaan ñun waaye gis ngeen or bam ko mayoon kan la koy mayaat bi'a hadhihi al-lu'lu'a hunak washtariya lil 'abid wa khadam al-qasam demal nga jaay or bi ànd ak rodamoon bu ko defee su ngeen ko jaay li nga xam ne ay ngeen jënd ci ay basang ak ay yére ngeen andi leen ko allahu akbar ah kay waaye man lii amuluma njariñ or bi amuluma njariñ lii moo cadeau bu mu la may la danga ko war a garder ne ko soxlawuma ko jël ko léegi lan moo tax ngeen gaaw ñibbisiwaat man kay xamul xew a tax ñu wàññeekuwaat amaana amaana Zuleyxa dafa bëgg a gis jëkkëram ji wala yooyu dafa namoon jëkkëram amaana loolu la. ah del xool baax del dema seetlu kalima ma de ko sori ca nga bëgg bàyyi xel bu dara xewee wax ma ko ndaxte am na ay plan yu tëral commencé tëral la ndax daam lu lu lu bon lu xew tiit naa de jaaxle naa de nekk nii. xam naa ni daal musiba ngi bëgg a dal am na ñoo xam ne ñu ngi tëral ay plan jëm si ci man ñan ñoo lay pra ci tëral ay pexe dañoo war a ñaan yàlla musal ñu ci hmm? pexe jigéen nañ yàlla yàlla musal ñu ci ah jigéen. اسمعني آه جيدا لكن أنا كانت عشيقة للموقع يوزرسيف أنا أتفهمها فهي لها بلا في العشق والوله kooku amul bàkkaar ndaxte moom bëgg la ak yooyu moom amu ci bàkkaar Yuzarsif Yuzarsif moom la xol yi moom bàyyi li ngay wax dégg li may wax lu wér la de yow taar bi nekk ci yow kay bu ko nit ñi gisee dañ ko war a bëgg nee na ko. nee na ko picc mu rafet daal dañ ko war a tëj jëb kaso rek waaye picc moo xam mënta naaw mënta moom boppam ah buñ ko bàyyee nag day dem fu ko neex. waaye mënuñu koo tëj nag bu doon yàlla yi mën nañ dara danaa leen ñaan waaye man xam naa ne yàlla yi mënuñ dara sa yàlla ji daal xam naa ne moo gën a mën ci yàlla yëpp ah kay yàlla moo mën lépp moo am kàttan. sikki sàkka moom bu mu la laal ci loolu gëmal ni yàlla man lépp moo man lépp moo am lépp lu daal lu tax daal nga sori ma fan yi daal jaaxal na ma man daal wax yu ñëwul ci man dara ñëwul ci man ilham ñëwul daa mel dañ maa tëj dañ ma dañ maa lonk ci diggante asamaan ak suuf déggatuma malaaka kenn waxatul ak man allahu akbar eh, doomu aadama daal bëgg na bum goo xam daf koy jokkaleeg yàlla loo xam ne ci ay xelam xalaatam doomu aadama tamit bëgg na fu muy wéeru wéeruwaay boo xam daf koy delloo ci yàlla subhaanahu wa taala allahu akbar ah Youssouf kon am na jamono joo xam ni gëj naa am daam am connexion gëj naa am connexion nee na ak a neexoon sama baay nekk ak man yàlla moo gën a sama moo gën a xam ci nan la da delloo ay pexe. baay yëg na ko nag connexion ba ngoog ah mbokk yi gis nga xaatira bi mu départ direct fekk seen baay ji mooy yëg-yëg boo xam ne day jóge ci nit gu yàlla jëm ci nit gu yàlla. mu ni ak neexoon sama baay nekk ak man ndaxte lu bëree bari kon ah, danaa ko xam Youssouf gëj naa am connexion ci boromam waaye tamit ndax déggutul benn wax yi waaye am na information yi ñëw de daa mel ni mbokk yi mbokk yi ñu xool foofu allahu akbar am na lu xew de mbokk yi bàyyi ji dafa gënoon a gëjoon waaye ba Yusuf nekkee ci xal xalaat ci mbirum boromam ni gëj naa jo malaaka gëj naa ñëw ci man dégg amatuma ilham ilham mooy wax joo xam ni suñu borom da koy sànni sam xel ca du jógee ci yonent du jógee ci malaaka direct moo sànni ko sam xel ak loolu ñuy tudde xaatira mooy yëg-yëgu xool boo xam ni daanaka bu ko nit ki génnee rek ci gémmiñam daanaka day méngoog la xew direct ilham nag ma nañ ko tuddee rek wax yu mooy xam-xam bu yàlla yi sonni cim xel gis ngeen laaw yi mi ngi noonu xam-xam bu yàlla sànni cim xel la nga xam ni ci ngay xam ni kon am na yeneen ndigal yu jóge ci kaw yuy wàcc Yusuf mu ne wax yu malaaka ñëwul aw ma ilham aw kon man jamono ji weet naa maa ngi mel ni ku ñu wékki ci kaw asamaan suuf yëgatuma ci sama benn information waaye ak a neexoon rek ngeen gis baay ji noonu moom tamit ma nga yëg mbir ma ba mu daal di génn ci néeg ba nag xel ma daal di dem dellu ci Yusuf dina kalima maam mi koy commencé yëddu waaye mbokk yi soxna si dee fi nekk nii mbëggeel gi moom na yaram yëpp mënatul a nelaw mënatul a lekk mënatul a naan commencé soppeeku complètement sama kilifa gi xanaa waxuma la woon ni damaa man ke dong ma des ah Yuda si ma nga ca Côte d'Ivoire de léegi po ah, ah, ah, occasion ngoog jox ma seetu bi ma ma ma defaruwaat bala moo